maintenant mooy li ñu bëgg def dans le futur en dehors de la formation mooy dem sàkku ji maintenant usine bi nga xam ne day fabriquer ay ordinateur day fabriquer ay téléphone portable day fabriquer ay caméra parce que Sénégal kat mënuñu kon ne rek di importer. woon na parler avec le directeur de communication et marketing ñu former suñu xale yi ci wàllu informatique depuis le niveau initiation au niveau supérieur loolu mooy aussi li nga xam ne dañ ko bëgg def ñetteel bi nga xam ne aussi bëgg nañ ko def mooy ñu dimbali ñu ci li nga xam mooy fibre optique fibre optique comme tuyau la rek tuyau ndox waaye tuy boobu ni mu gën a rëy rek ndox mi gën a bëri tey nag dañu nekk ci ère de l' information ère de numérique nga xam ne ay milliards information la ñuy euh, mën a joxe da jaar ci banques yi jaar ci serveur àdduna bi jaar ci lu bëree bëri loolu nag fii fibre optique moo ko mën a def te suñu fanweer usine ak ñaar ñu xaar euh, ñoo loolu la ñu